démb ñu ñëpp ko yëgandoo signal Walfadjri démb lañ jot kayit yi dégg ngeen Moustapha Diop lu mu ko mais en tant que journaliste bu nekk si métier bi ñu jàpp nañ loolu métier la ak recul la parce que quand on de Walfadjri en ce moment Walfadjri c'est patrimoine national ça appartient pas à Cheikh Niass ça appartient ça appartenait plus à ki xam ne moom mooy euh, euh, ndem si yàlla bi Sidi Lamine Niass donc Walfadjri Sénégal yi ñoo ko moom c'est un bien public. waaw mu nekk lu metti rek nekk loo xamante ne vraiment dañoo foogoon ni euh, c'est vrai que yàgg nañoo subir ay répression tëj nañu Pape Ndiaye tëj Coro tëj Cheikh Bara Ndiaye dañoo foogoon ni état bi du egg ñun à ce point vraiment dans un état de droit tëj maison de presse wala nga dagg ay signalam moom vraiment dafa loo xam ne régression la. te noonu nag lañ fa gisal fii Sénégal mu nekk lu metti nekk loo xamante ne euh, je pense que le chef de l'État Macky war na revenir à de meilleurs sentiments wala waxtaan ak ñi nga xamante ñoom ñoo jël cette décision parce que dañuy ternir l'image du Sénégal international mais day restreindre les libertés euh, tamit euh, dafa nekk loo xamante ne day gàkkal bu baax a baax suñu démocratie. Walfadjri Walfadjri ñëpp la Walfadjri Walfadjri góor la Walfadjri jigéen Walfadjri xale Walfadjri mag Walfadjri ndaw ñëpp ñoo bokk Walfadjri kon coupure bi keroog bi ñu koy coupé fekk na man maa ngi déglu Walfadjri maa ngi déglu Oustaz Assane Diouf ak euh, Moustapha Diop ak ñi nga xam ne ñoo doon def émission bi keroog ba yàgg ñu ni image bi ñëwatul maam lu ma naqari lool nag. man jàngat bi ma ci am euh, jàngat la boo xam ne euh, day yee sama mbokk journaliste yi ak patron de presse yi ñoom lay ñoom sama jàngat. euh, on doit être unis c'est presse presse sénégalaise dama corporation fii Sénégal ñeneen ñi ils sont unis boo demee ci avocats yi ils sont unis xoolal waa impo et domaine bi ñu jàppee euh, kii euh, waaw pourtant kooku fan la bokk Pastef la bokk mais euh, waa impôt et domaine ñoom ñëpp dañoo jóg et pourquoi pas nous la presse. au Sénégal amul benn journaliste bi nga xam ne tey tey yàlla may na ko lim ko may mu doon noo noo père mu am lu mu am tey te jaarul fi nga xam ne mooy wal Walfadjri donc c' est à l' du Sénégal ñu moom la ñuy waxal ñoom ñu xoolaat seen wax ju ñu doon wax démb le président Macky Sall laay waxal wax ju ñu doon wax démb naan Macky Sall naan naan Abdoulaye Wade lu mu doon def Walfadjri di ko naqaru naan Abdou Diouf nii la doon wal Walfadjri moom loolu la nekk en de le faire les mêmes déclarations yu ñu doon def tey ça tourne si moom. donc na xoolaat vidéo bi lu xale yi naan VAR moo fi am. du moom moo ñëw fii Walfadjri moom mu ne sama nguur duma ci tëj journaliste ah fu mu nekk mu ngi ñuy tëj ñun ñëpp tëj nañu parce que de waxatuñu ñun tëj jeex na tëj nañu kon nag li moom nag moom na am moom moom na am moom na xoolaat rek li muy def lii jaru ko fi nguur daf ko fi jarul <laughs> waaye nag ñun ñëpp xam naa ne moom ñu ñëpp dinañu waa ñu ñëpp lay buub yóbbu rek. parce que fu mu nekk nii lii sax mu ngi nii xaj nañu suñu lan waaw loolu waaw xaj ñu suñu liggéey waa léegi ñun la waa ñoom lan lañu bëgg ñu def nañ ñu ko wax Macky wax ñu lan nga bëgg la ñu def nag ñu ndax ñu da nga ñu jël suñu liggéey bàyyi suñu ni ñuy liggéeyee ni ñu jàngalee ñu ñoo def beneen liggéey loolu la bëgg mu ngi noonu. Euh, les conséquences sont déjà là parce que gis nañu majorité euh, des employés ils sont en chômage technique yow mu ngi fi ñëwee gis nga fii nu mu nu mu wéetee te d'habitude fii da daan donc ñu bari ñoo xam ne c'est des pères et des mères même pas des pères des mères mu nekk lu metti ak conjoncture bi ñu dund jamono ji ci Sénégal mu nekk ay jamono ju metti mi ñëpp xam nañu ni euh, nit ñi dañuy dem nii rek mais c'est très difficile financièrement pour tous les Sénégalais donc nga yóbbu ay pères des mères de nekk loo xam ne dafa gënal bu baax. gënulu direction ils n'ont pas le choix parce que nekk na loo xamante ne c'était inévi c'était c'était pas loo xamante ne euh, mënoon nañ cee rëcc parce que lu ñuy dund dafa metti Walf depuis euh, mun naa ne plus de trois ans ñu ngi subir vraiment acharnement noonu laa ko naa ko mën a waxee acharnement la euh, gis nañu aussi li nga xam ne mooy suñu fondation levée de fonds bi nga xam ne sénégalais ñoo ko décidé les autorités ont pris la décision suspendre suñu <laughs> compte donc nekk loo xamante ne vraiment jamono ji sax c'est des gamineries yi fa xale la te de la part d'un état c'est bas. suñu demee ba Sénégalais yi tey toog génne seen xaalis di cotiser pour fay ñi nga xam ne mooy salariés yi à l'approche de la fête de la tabaski ñu am lu toll ci 30 millions xëy gisaat ne dañ ko boycotté donc dañuy génn li nga xam ne moom mooy fondation Walf bi si euh, biir application Wave bi pour sénégalais bañ a contribuer mais dégg nga wax sànq moyen day am solution munul ñàkk si même réew te yéen a ngi sénégalais ñooy déplacé wu ñëw di seen xaalis ñaa dërëm juróom ba 10 000 da ngay sax koo xam ne kooku journaliste bu liggéey Walfadjri mu Walfadjri moo ko ëpp xaalis de mais day ñëw gaare li muy gaare ñëw jël 5000 am doo ko si kañot parce que jàpp na muy def nii da siy jaamu yàlla nekkatul Walfadjri nekkatul Sidy Lamine Niasse nekkatul kenn sénégalais c'est l'affaire du peuple et c'est un combat ce combat c'est quoi mooy tey nguur bi lu muy jéem a contrer les faits politiques yi muy jéem si mbir mi Walfadjri sénégalais ñëw di ko wan ne ñun dañuy xeex maanaam guerre day saf mondial. xooj la dañ leen ñun dañoo bëgg a xoj dañoo bëgg a la disparition de Walfadjri Walf mënul disparaître billahi Walf mënul disparaître Walf du disparaître tey du disparaître ëllëg ñun ñii buñ ci am na ñeneen ñu ñëw Walf restera toujours Walfadjri man maa la ko wax parce que ki ko sanc ki ko sanc xam nga dem na Walfaa taxaw ñun ñii itam dinañ dem walfa day taxaw. te suñu waxee un bien publique te bàyyiwuñ benn sénégalais bàyyiwuñ ku nekk ci village yi lointain bàyyiwuñ ki nga xam ne tey moom moo nekk en ville te rawatina ñi nga xam ne tey ñoo nekk au fond du pays parce que ñooñu amuñu connexion internet pour mun a dugg si yenn si yi pour gis yi nga xam ne mooy information te Walfadjri par rapport euh, au fait dañu gëmoon tuuti par rapport à l'histoire Walfadjri ñoom lii nekkul guléet gis nañ ne régime bépp gu ñëw suy régime bi di waaye daanu rek da ngay ñëw acharné wu contre Walfadjri wax ces journalistes et eh, quand on parle de ces journalistes on parle aux Sénégalais moo tax Walfadjri mënoo ko tudd tàng tudd les Sénégalais muy man di yow di keneen beneen journaliste bi nga xam ne tey même su nekkee liggéeyu fi sax tey lu ñu def Walfadjri da da yow da gis sa bopp parce que da lay métti parce que des fois tax sax en tant que journaliste nga ko wala keneen keneen def ko ñu diviser ko yow nga gis sa bopp dem reprendre reportage boobu changé waat tàng angle traitement maanaam école la seen école te am na loo xam ne ñun en tant que des journalistes muy xew si réew mi par rapport à notre démocratie parce que quand on touche au secteur le média mooy démocratie amul média rek ngay laal tey si réew waa société civile bi ñëpp génn muy Amnesty mu yeneen corps de métier ñëpp génn na réew mi amul démocratie képp ko mun di laal mun nañ sax xaw a laam-laama di wax leen ni mais journaliste nga tere ko wax wala nga tere ko wan li nga xam ne moom la sénégalais yi di dund parce que ñun lu ñuy def mooy dañuy jox suñu micro sénégalais ñu wax ñëw diviser traité informé segg génne donc nekkul ñu ñoo koy wax à notre propre gré dañu am firnde source bi mooy sénégalais yi donc dañ bàyyi lu ñu def jéem a xam xalaat ne réew mi ñoom dañuy dem bàyyi ko fi te ëllëg dafay jar sóoraale ëllëg warut a ñaaw ëllëg warut a mooy ëllëg bis boo soxlawaatee li nga xam ne mooy war a fajari parce que ba nga ko soxlawee sa fayoo ko dërëmaa da nga ñëw toog mu couvrir la ngay dem ñi lay sonal Abdoulaye di la sonal nga ñëw di toog di wax moom mu ñëw jël micro am di la invité ay émissions yu gën a am importance may la audience ba tey yàlla may li may ba tey nga am li nga am donc c'est au président de la république la wax mu bàyyi lu muy def mu xoolaat ñi nga xam ne tey ñoo taxoon moom mu toog fu mu toog muy Sidy Lamine Niass moo la ko xeexal demoon nañ sax bay taxe de Sidy Lamine Niass naan ko moom il appartient à l'opposition il appartient à Macky si ay jamono ba la gars yi def ne Walfadjri c'est de l'opposition Walfadjri il n'est pas il n'appartient il n'appartient pas au pouvoir il y a aucun journaliste fii nii bu appartenir au parti politique képp ku appartenir à un parti politique gars yi dinañ ko xam te démb Guy Marius Sagna dafa ko wax si ay kàddoom avant muy laataa muy def discours am dane yéen waa Walfadjri dégg nañ da ngeen lancé cagnotte ak yooyu noonu mais soo leen jaarul système bii nii gars yi nañ ko bloqué mu mel ni tey lu mu doon wax firnde la mu mel ni tey acharnement boobu noonu tey firnde la mu mel ni tey note boobu noonu firnde la si loolu nag ministre de la communication laay interpellé Bocar Thiam ñoom gis nañ ne ñëw nañ tëj signal Walfadjri sans jox leen ay papier vite fait indi li nga xam ne mooy papier xaw ma càccax lañ ko teg xaw ma fu ñu ko teg ñëw jox ko mu mel ni moom moo bloqué woon li nga xam ne mooy dossier bi te dañ ko woo téléphone mu ne moom yëgul tinul ñu ñu dem foofu noonu lan laay wax mooy ñi liggéey ñi nekk secteur bi te nekk suñuy mag mooy ñu nekk si ay seen SYNPICS nekk si yenn organes yi maanaam les jeunes reporters ak ñu ni mel yenn convention yi ñu toog xam mbir mi seen mbir la tey jii aujourd'hui tey li ñu def Walfadjri épargné wul ëllëg yeneen télé yi de yeneen patron de presse yi ana ñu c'est à eux maintenant c'est ñoom ñoo wax a porter le combat de Walfadjri bu ëllëgee bu keneen amee problème ñun ñëpp ñu bokk bokkandoo c'est ça aujourd'hui la solidarité dañoo sonn di buntu xataal kenn ñuy bàyyi parce que lii lii am nii sincèrement honnêtement te jour ba man damay juger te jour ba ñun li ñu wane ak li ñu wax moom la ñeneen di wane wa ñu ne kamat ah mais loolu war naa yee. waa léegi bu ñu bàyyee nii ñu kii eh, ñu kii Walfadjri ñu kii ñu kii ñu nii hmm, saa yi politiciens yii ëllëg ci biir xam ëllëg politiciens laay xal de nguur bu fi ñëwaat ak nguur bu fi nekkaat bu dee ñi xoolal li ñu def Walfadjri nii mën nañ ko def keneen soyons solidaires nous la presse man d'accord naa ku tooñ man ma nekk ko ñoo waaye ñun tooñuñu qu'on se dise la vérité aujourd'hui man li ma jaaxal mooy aujourd'hui comment se fait-il que dégguma benn euh, euh, patron de presse bu ñoo jàppale Cheikh Niass ne ko voilà mais il y a combien d'emplois qui sont menacés aujourd'hui yow mii di may interviewé menace bi may menacé fii mu ngi lay menacé yow yow mu ngi lay menacé mu ngi menacé Birane Touré mu ngi menacé mu ngi menacé keneen ku nekk même RTS keneen ku nekk feneen c'est la solidarité s'il n'y a pas de solidarité gaa ñi gaa ñi man man de man man journaliste bu ñu laal man damay solidaire ak moom dinaa dem nag ne ko nag man ak moom bu ñu toog ma ne ko déet nii waaye damay solidaire ak sama ak sama confrère soyons solidaires honnêtement soyons unis unis face à ces politiciens là qui sont la pour qui sont là seulement pour brûler le pays ñun ñu dëkk bi ñoom ñooy taal dëkk bi du ñoom ñoo koy taal waaye non mais attends ah du seen seen xëccoo bi moo taal dëkk bi waa kër wala moo taal dëkk bi seen xëccoo du moo taal dëkk bi est-ce que eh, est-ce que journaliste bi journaliste bi taalul dafa def liggéeyam c'est ce a appris li ñu wax yëpp ci yoonu journalisme lañ ko teg mu ngi noonu. Walfadjri mi tawul loolu. parce que ñun fu Sénégal mos soxla dañ fay toog auprès du peuple donc waruñu waruñu subir injustice bi nii mais lu ma ci gën a mettre mooy silence coupable des de nos confrères wala une partie de la de des presses dama foog ni loolu moo ñu indi fii parce que chaque fois ñu jàpp suñu benn confrère au lieu ñu jub nekk benn bloc xeex ko mais dañuy toog di naan est-ce que kooku journaliste la est-ce que am na carte de presse mais ni carte de presse nationale mi nga xam ne c'est récent la war a régi ko war a nekk journaliste donc c'était euh, affaire bi moo tax mu dem crescendo dafa jàpp ñun ñëpp toog di xool on a laissé a laissé les choses traîner aujourd'hui c'est Walf TV ñaan ma ko yàlla wala 2STV wala keneen wala sax on est prison amatu fi dee léegi nekkatul loo xamante ne mooy loolu donc ñun ñëpp lañ toog jël seen responsable xam ne cela y va de l' avenir du Sénégal ñu ngi fii nii ñun ñi desandi ko fi di def suñu liggéey on est sur les plateformes di wax nag les abonnés di di di partager aussi di di di suivre sur YouTube on est toujours là-bas on est très suivi donc li ci des comme que nee nañu le premier juillet espérons que euh, suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aada yi dinañu waxtaan ak ki nga xamante ne mooy les autorités étatiques plus plus le père de la nation mooy le chef de l'État Macky Sall pour que mun a revenir à de meilleurs sentiments xam ne Walf du noonu Walf daf fi di def suñu liggéey donc même su fekkoon man j'étais la fille du président de la République su ma xasee ba franchir les portes Walfadjri je suis journaliste donc ma fi nekk di xool le président c'est mon père wala c'est mon oncle je fais loolu bu ñu ko comprendre jël Walfadjri comme benn noonu wala jël ko comme que dafa nekk contre le pouvoir rek duñ ci alors que c'est pas ça le rôle d'un journaliste malheureusement ñun ñii sax on se fait procès nous-mêmes nous les journalistes moo tax affaire bu nekk loo xam dafa ma metti vraiment mais nag Sénégal moom jamono ji euh, ko wane Walf koy wan loo xam ne mënoo ko am fenn ci Walf kes nga ko mën a moo tax ñu fas yéene tey ñëw gaare fii suñu oto après ñëw participer comme comme bépp Sénégal comme ni Sénégalais yi def loolu moo tax tey ñu fii ci Walf métti na trop ah na trop mais mais tamit da leen da da leen di masaw rek dañ leen di masaw bu baax baax. ni ñu ko gisee ndax dikkul tey dikkul tey comme dikkul tey def nañu ko def ko defaat ko yàlla dogal na yaakaar nañu ci newal doole la ñu nekk waaye nag bu dee ci newal doole lañu la ñu nekk dañu xam ne Walfadjri ñëpp ko bokk gouvernement bi sax ci la bokk ñi nga xam ni néew ji doole ñu di lu ci la bokk ba ci képp koo xam ne amul loolu naqari ci Walfadjri ngay ñëw di ko fi jooy kon ñëpp ñoo bokk Walfadjri Walfadjri bu ñu lañ ko coupé. coupé luñ ko gouvernement bi kese coupé luñ ko Walfadjri bu jël yéen ñii ci ñi di fi liggéey yéen a gën a tuuti ci ci ci ñuy jëriñ ci Walfadjri yéen ñi fi liggéey yen a gën a tuuti ñuy jëriñ ci Walfadjri kon bu ñu ko coupé ñëpp lañ ko coupé te ñu ñaan yàlla na ñu delloo si ko ci lu gën a gaaw di ko wax président de la république lu gën a gaaw nañu delloo si Walfadjri te xam ni Walfadjri Walfadjri ñëpp la ñëpp ñoo ko bokk lépp lu la mën a naqari ci Walfadjri nañu nañu ko génne ci seen xol teg ko fële te te te delloo si seen xol delloo si wal faji man de ma man de Babacar maa ngi leen koy ñaan ci kàttanu yàlla ak barke Serigne Babacar si barke Serigne Hadj Malick barke Serigne Touba barke Mame Limam barke ñu baax ñëpp barke Serigne Abdou Khadir Jeylaani maa ngi leen koy ñaan yàlla ñu dellu si wal ndax wal faji wal faji ñëpp ba mu coupé ba léegi daanaka man seetaanatuma télé daan